asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu seen football TV naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi maaya Sénégal yi moo ngi disponible ba tey au 77 352 31 01 wala 77 685 78 12 mbokk yi dañuy ñëw wax sur le cas Pape Gueye démb defal naa leen benn vidéo expliqué naa leen li ma ci xam tey nag yenn taskatu xibaar yu nekk foofu sa France Marseille surtout euh, que ça soit le Provence xamal nañ ne euh, Pape Gueye dina war a mën a sax pas Jouer joué mardi contre Malawi fenn rek lañ ci teg ñoom bu euh, ak président de l'Olympique de Marseille Longoria Longoria si lu ñu xamale confiant na ce dossier confiance na si te jàpp ne voilà dinañ def ben appel appel bu xamante tas lañ koy def tas mooy walum wàllum sport yi gëna a mag en général boo bëggee def ay plainte yene yi foofu nga kay déposer du coup fofu lañ fofu lañu dem bu ñu fofu nak euh ñoom bëgg nañu ñu bay pap Gueye 6 mois yooyu ñu ko acc lepp mën nañ ko def après mais cette saison ñu bay non seulement war na jouer Coupe d'Afrique bi mu agali Coupe d'Afrique bi agali saison bi après lepp li ñu wara régler ñu régler ko parce que si fàttali rek ñëpp xam nañ né Watford euh li na donc lu moo tax ñu xaar ba léegi nii moo tax ñenn ñi ñu ngi naan pour pas est ce que du li Ismaïla Sarr duñ ko forcer pour mu ñëw Sénégal est ce que meruñu loolu ñu mere waa Sénégal xam nga déposer plainte bi

remplacer na mais liñ doon xaar carrément andi ko manam côté euh, offensif bi euh, jouer à une touche de balle yégal balle bi projeté pourquoi pas décalé wu euh, am benn relation ak Sadio Mané bi nga moy électron libre loolu yépp amuñu si Mamadou Ndiaye te Pape Gueye je pense que Aliou c'est loolu le préparé woon ci mom bay Cheikh Kouyaté Cheikh Kouyaté xamné ne mom def na tamit match bu baax a baax donc dañu nekk di espérer actuellement bokki kenn mën leen wax lu leer parce que Sénégal mën ci dara Sénégal mën déposer. FIFA wax ne man ñu bàyyi nag joueur bi et tout mais Marseille dégg mos man dara parce que Marseille mooy mooy loyer bi moom mooy fay euh, mooy fay Pape Gueye du coup waa Marseille ñoo si mën a def dara. Euh, donc euh, bu fekkee fédération bi lan la ñu mën peut-être mën nañ déposer ni FIFA pour ñu mën leen a ak jour bi vu que ñoom seen yoon nekk si ci côté boobu mën nañ si dara mais ñi si mën dëgg dara c'est Olympique de Marseille espérons que loolu euh, mu sotti parce que ba jamono bi muy wax ak yéen yéen taskatu xibaar yu nekk fële ci Marseille ñoo ngi xamale ne Pape Gueye bougéegul Cameroun donc moo ngi Cameroun moo ngi ak joueur yi mbokk yi nag li moo nekkoon vidéo bi ci commentaire ku si nekk mën na ma wax Khalatam ak gis-gisam ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen